alaikum amis téléspectateurs de la télé passionnément LCS dilen di Bégué dilen di ziar lu Béré c'est une fidélité sen émission sunu site ñëwaat na tay dañ ñëw sét ci Mamène Dino Dino bu ngay fàttali ko génné na first album en 2012 tout ko Ndey Mbëll gi loolu sax moo tax mu bok ci tube de l'année bini passé donc amis téléspectateurs bienvenue dans sunu site ak Dino Live Phonique Loulou NS let's go yémaan gars yi comme ni ma leen ko waxee instant bi seen émission euh, sunu site ak ma meen euh, Dayno instant bi ñu ngi toog ak moom Dayno maa ngi lay bëggee waaw maa ngi lay yokk bëggee man di leen remercier si opportunité bi bi ngeen may présenté nii pour moom mun a wax ak sama gars yi quoi gaynde triples what's up man ki mooy Mr Dino ah l'homme de euh, Ndeye Mbile mu mi ngi génn euh, en 2012 ah album bi ci la génn mais Dino man ba ma lay xam sa first album ba muy génn ci laa lay soog a xam te yaakaar naa ni bëri naa ci ay morom parce que boo laajtee Dino dañ naan la Dino ah mooy militaire boobu noonu gaan bi nekk kaaw bu affaire demee noonu après jeex na mooy Dino ak Dino lan moo ko influencé ci mouvement hip hop Galsen bi Well, bon, uh, Dino Alioune Gueye you know mooy sama tur quoi you know c'est Dino mooy sama tur artiste HLM Nimzatt laa dëkk Gala baa ngi nii you know HLM laay représenté Galsen laay représenté bépp hood everywhere you know saying so Dino uh, xale la Sénégal bu jóge woon fii now. instant pare jàng uh, am bakam dem States pour continuer jàng Them uh, foofu ni bon Twitter à des événements nii et puis ma bàyyi school bi nii ne damay dugg si musique bi pour par rapport para. message moo bëggoon peut-être xam nga rek artiste moom you know dafa am lu muy gisee àdduna bi quoi so gis-gis boobu laa bëggoon tasaare you know partage ko gars yi te musique laa gisoon mu nekk plateforme bu ma koy permettre ma def loolu quoi so noonu laa duggee si musique bi ah, euh, sama premier intérêt si musique bi euh, instant boobu la bon benn instant ni euh, dû à des circonstances familiales et ni ma bàyyi son yi du kon focusé si affaire du jàng ba you know succès personnel bi you know réussite bi you know seen bi ma demee ba alhamdulilah tool foo xam ne nii maa ngi sant ba amaat naa jot bu mu war a mën a consacrer musique mu duggaat sa musique bu ko donc euh, bi mu si duggee nii c'était même pas ay problème de delluwaat si li ma taxoon ni njëkk dugg si musique bi si njëlbeen dama si duggoon nii rek c'est affaire de planage nii bëgg bégal you know gars yi quoi mais bon affaire bi jëlaat beneen envergure renouer waat ma ak you know seen euh, ambition initiale yi ma amoon quoi mais jaar naa si armée bi armée américaine du ma woon marines ñëpp nee nañ marines <laughs> laa woon quoi soldat laa woon armée you know seen. si gars yi loolu la woon marines nga euh, si armée bi laa ne woon def naa si quatre ans ak lu teg somme euh, mais bon dafa tombé bi ma duggee si armée bi nii ay quelques mois après rek 11 septembre am donc. Euh, xam naa yàllaa ko def dogalee noonu quoi parce que bu doon beneen période kon ba légui mën nga wax ni ma ngi ci armée bi quoi parce que c'est c'était très bien pour man fekkon na may dund ay difficultés yu tar bir New York you know saying bi ma duggé ci armée bi nak ça m'a permis de retrouver you know saying sama sama footing quoi sama ma taxawat taxaway bu deuguer donc armée bi mënum awma lu dul ngeureum pour ñom you know jangal nañ lu bari ci sama bop jangal nañ lu bari ci live bi mais euh, bon voilà quoi armée mom outil la rek you know c'est outil yu xam nga képp kuy fay sa salaire moom moo la moo la moo la donc euh, voilà bi ma gisee li ñuy def defloo armée bi si kaw suuf si nii bon surtout bi ñu demee ba amatuñu ay affaire de commune you know communisme ak ay socialisme ak yooyu ñu bugg indi beneen ennemi dugal def mu doon islam ak fi ma islam tool nii mënatu moon toog si biir armée boobu quoi alors si laa génne si armée bi nii et bon voilà quoi dugaat si musique bi nii. tombé nag sama idéologie ak li may yëg li may ressentir yëpp cadre ak li xew si jamono ji nii quoi donc yëpp dafa coïncider ma dugaat si musique bi nii mais affaire bi nice quoi instant bi ça me de vraiment you know wax ak boy yi nii tegal leen beneen vision boo xam ne nii peut-être duñ ko jot si si si si télé yeeg affaire yu demee noonu quoi so musique moom nice instant bi Euh, donc kon yow buñu comprendre bu baax day non servir atul nekkatul fum mu toll militaire. non génne na ci armée bi légui mu def 10 ans instant bi def na ay 9 ans et quelque hein. you non léegi mu def 10 ans donc yàgg na torop quoi mais c'est-à-dire dama génn ci <clears throat> biir armée bi maa ngi suivre benn formation en logistique. you know seen so bi ma génnee généralement euh, compagnie yu bëri embauché si filière boobu nii bon y a y en a dans le civil quoi mais boo génnee si armée bi nii dañ lay récupérer donc euh, bi ma génnee bon j'ai été récupéré par une compagnie bu tudd KBR Euh, ñu am position en Irak ils m'ont proposé d'y aller bon Irak moom du foo xam ni ce salaire di nga mës a toog ba xalaat ni dinañ fa dem quoi donc euh, xala ma xalaatoon ne benn opportunité pour gis aduna bi ba paré dem xol fa xew quoi donc ma dem fofu ni bon après like un temps ni ça devient ton style de vie mon ex sama lifestyle quoi donc boobu léegi maa ngi ci àll bi rek di di bës quoi depuis ça fait léegi ay huit ans maa ngi si diggante Irak ak Afghanistan di boss bon. mon na am na ñoo xam ne nii mën contradiction si ñoom par rapport ak sama ngëm par rapport ak sama idéologie lu tax ma mën a nekk foofu di tout mais benn mooy opportunité bon xam ne salaire yi bon dina ma permettre peut-être ma dundal musique bi dundal sama njaboot dina gérer li may gérer beneen bi mooy dina ma may gis-gis boo xam ne nii du gis-gis bu la média yi di jox quoi gis-gis la boo xam ne maa koy sa sama bopp donc su may wax si yenn affaires yi dina am fu may waxee dina am. fi may taxaw nii dina gën a dëgër ko loo xam ni da ngay si télé bi nii rek wala nga dem nit ko si internet bi nii di ko wax quoi yaa dégg donc am na beneen njàngat boo si mën a am ko non c'est boobu mooy mooy si baatin si baatin par rapport ak li ma li ma bëgg wax li ma bëgg def nii

ok muy lu muy lu nice ah. tamit ñu euh, man euh, ma xool instant bi nga xamante ne nii Dyno euh, mi ngi ci armée bi comme ni mu ko waxee nii léegi mais est-ce que Dyno réellement yow instant bi sa album bi di génn parce que man bu ma lay xam la rek album bi génn quoi est-ce que instant boo noonu yaa ngi doon def ay single parce que tey jii boo demee ba entamé ne da def dugg léegi ci game bi à nouveau pour jàllale ay message di étudier terrain musical bi fii nii ak naka lay doxee. oui non mais malheureusement nag loolu tax ñu bëri xamuñu ma parce que en fait euh, man jàlluma si yoon bi nit ñi di jàll quoi. gars yi da ngay ñëw génn benn single bomb ko toogaat ay 4 mois cinq mois ba xaalis bu tegu nii wala wala nga dooraa benn single bomb ko teg benn vidéo donc gars yi di la gis di la bàyyi xel quoi bàyyi un an un an demi deux ans après la gars yi di génn album généralement quoi. mooy processus normal bi. waaw yeah bon man vu you know bi may tardivement bi may dugg si game bi man instant sama biir xol un peu tardif par rapport ak you know sama sama famille et tout donc dama bëggoon accélérer affaire yi nag bon maa ngi siy profité pour di béggee waa Yeesal Beat Records sama homeboy Béchou bon au départ naandu ma moom li ma doon tegal quoi parce que dama yaakamte woon mais léegi fi ma toll nii si game bi nand naa ni moom bi ma doon wax naa ma non il faut ñu jël suñu temps def nii def nii foofu la ma doon bëgg jëmee quoi you know seen nag mooy ñi nga xam ne ñoom laa njëkk àndal bi may dugg door a si game bi mal compréhension boobu nii ak sama yaakam tey sama sama xarar yi xam nga dem ba benn instant ma demal sama bopp quoi you know saying mais bésu gis naa li ma doon tegal quoi you know saying soo jégalu donc loolu quoi dama ñëw bu max affaire yi bu max affaire yi nii pour mu dem nii parce que chanson naa ni gars yi tamit boo ñëwee indi leen benn qualité bu tegu benn qualité bu nice ni buñ ko geree amul xaar quoi parce qu'en fait euh, produit boy, jaay euh, gars qualité de ci bëgg ak lo xamné ni nii gis nañ ci donc je me suis efforcé à leur fournir à leur donner vraiment un produit digne du nom you de hip hop d'un album alors bon chanson en ni avec une bonne promotion day quoi peut-être que ni peux promouvoir encore une fois sama sama naïveté la sama ñàkk xam game bi parce que bëgguma woon ñëw ah, you know encore une fois si game boo xam ne nii bon naan ma ko nii rek ñëw ak sama ay sound yu hard you know ay sound yu you know ay sound yu ko yi yu réel yi pour man nii dama leen di introduire ay son comme ay Galsen represent wan leen ni man Galsen mu tax a jóg par exemple ay fàttaliku di leen jox ay beneen style hip hop benn xam nga beneen jàpp quoi mais il s'est trouvé que bon Sénégal game bi danoo xarañ gars yi danoo métti ba nga xam ne ñoom xam nga yooyu da tax lay buy de gars yi de c'est soo loolu tamit ci li retardel affaire bi ci la bokk quoi parce que su mu leen joxoon yenn son yi buñ ko peut-être del la première fois ñu koy dégg dina dina susciter en ñoom curiosité bi ñu ne xaar ñu dem xool waa ji leneen lan la yor quoi yeneen yenn bagage lay indi mais am na ay son yoo xam ne boo leen ko joxee ñenn ñi peut-être dina susciter curiosité boobu ci ñoom mais ñi dañ naan non non en même temps Nous me doon job, you na team bu ma doon <clears throat> communication bi tout. avant album bi ah? bon avant album bi bi génn am ñu ma doon jobal ya nga doon am ay information wu fini hip hop bi affaire bi même bu maîtrise non même pas. Ah. même pas dama doon affaire bi nii la dama vacances chaque fois suma suis vacances ñëw fi sama cousin yi on sortait di dem ci temps bi de temps en temps ñu dem ci yenn club yi donc ma gis ni gars yi ay son tubaab rek la ñuy teg son hip hop hip hop. Sénégal yeah ci club Sénégal yi doon ñoon teg hip hop sénégalais. jaral na leen sax ñu teg hip hop yeneen pays africains yi mais duñu teg hip hop sénégalais quoi mais en général hip hop kaaw la hip hop américain. après man ni nag bon benn instant bi ma si sonnee ma ni bon su ma ñëwee Sénégal damay enregistré benn son wala ñaari son yoo xam ne damay dem rek jox ko Sénégal yi bomb ko fi après jeex na quoi sama life yi sonn you know donc si laa ñëw door gaa seen représent bi door doxandem bi après ñaar yëpp dem leen clipper dem bàyyi ko fi nii quoi pour man instant boobu pare woon naa si son yaa mais après bi ko gars yi déggee euh, you know c'est ne bon ça se voit que yow talent am nga talent quoi et puis ñaari son yi nii boo boo leen gungee rek di nga am dara ko you know seen basically yi di ma wax que demal donc ma toog xalaat bon Irak boo fa nekkee you know da ngay job boo wàccee amul papa amul yaay amul doom amul xarit da ngay dem sa sa chambre toog di seetaan télé wala nekk si internet bi di lire ay affaire genre demee noonu quoi soo j'avais beaucoup de temps you know entre les mains ma commencé di bind bon mo ñu indi ba tay ji fi hein ok donc ci game bi tamit amul won amo won euh, kenn ko xamanteni yeen nga am ay relation yu bien yang koy digënté mom pour mu informer la yeen non man en fait king size ben site bu tuddu king size la la don dugg ni di xol artiste yi di xol kan moy kan kuy def dara ni bon king size mo don sama education hip hop malheureusement you know c'est suma sañon nak suma suma bi may door ñew dina tassé ni nga xamné ni dinañ ma tax yoon quoi non sa bopp mais instant boobu tamit comme ni ko gars yi di waxee dama dëgër bopp nii pour teg ma si yoon yombul quoi te <laughs> non soo euh, mais lépp ay loo gis mu tegook waxtoom quoi lépp loo gis mu tegook waxtoom you know expérience boobu nii daf ma jëriñ lu bëri parce que même bu dul dara sax léegi tax na ma xam Carl Sène quoi parce que bu mu fiy jógee xale bu ndaw laa woon donc bi may dellu si tamit image boobu moo desoon sama bopp quoi te bi mu fiy jógee nii sama gars yi ci HLM bi presque ñëpp ay ibaadu leen woon wala dañoo xëroon quoi donc amoon na benn lifestyle bu ñu doon dund benn benn brotherhood fraternité bu ñu doon dund benn ngëm bu ñu doon dund boo xam ni moom laa yóbbaale man donc bi may dellu si nii yeah mais naanu ma loolu quoi man so bi may ñëw nii life boobu laa doon dawal ak gars yi quoi like jëma mais gars yi cañ nañ bu yàgg quoi dafa bàyyi si ginnaaw yee ki mooy ma meen sa émission sunu site instant bi ñu seet si ko nee naa la album bi génn na en 2012 tuddee ko uh, Ndey Mbëll gi donc dañuy xool benn vidéo boo xamante ne si album boobu la nekk mu tudd Happiness jox ko téléspectateurs yi ñu gën a xool Dyno xool mooy kan si ñu ko xamuloon ñu ñëwaat léegi sa émission sunu site uh, uh. happiness li ñëpp di wër seen life Lola laa bëgg man dino sama life too so check it borom jaasi ji Ali Mame nana naanaa ni kuy defensive dagger maanaa la bëri daraja ni bëri ma boo ko gisee joxoo ko cëram danga jaar lii mooy hip hop homie you know the deal jox la métaphore yu may la ma sëf la mën a fiil laaj bi may dund si kaw ay biir ci chill bu mentee woon sa xol sax dangay nangu for real happiness de sama xol laa ko bëgg te keeru ma ndegam géer la géwal wala dëgg bëggantey defalante lu nu gën a bëgg su may sama tur laay bëgg rënd yàlla bu xale bi dëggu ba man lu metti te bu man may mu la ki may xaar mu wétali ma sama deux jours te ma dund happiness laa bëgg sama laay sama happiness happiness sama ma bëgg li ma ko defal ni ma ko bëggee happiness laa bëgg sama laay ma xam li koy bëggal di ko ko defal ni ma ko bëggee happiness laa bëgg sama laay séparé wax nga dëgg waroo ma bi mu la de wax nga dëgg waxante ba yàlla seede nga def li nga bëgg bëgg dellu si di ma bëgg eh, yaa wax dëgg eh, yeah man donte jàmm rek laa bëgg dund au nom de Dieu yéen yi dootuma ko nangu foloo bi joxoñante bi no thanks su ma gisul happiness damay bonde ni bal thanks xëcc sama paquet génne sama iPhone pour sama partenaire a dooxu doona papi ndooy yow sa homie ni mu demee sama côté rien wara déposer man. sama fa jógee de bëgg naa dëggu taan mën naa jaar këpp la ñu naa ni if you down raxas oto bi bërim yi melax ma ne mes dugg si say bi es ta seeg happiness deux jours a des si life bi te foog ma dund happiness laa bëgg sama life sama weta lay seeg happiness la tudd happiness laa bëgg sama life I'm ma bëgg di ma ko defal li ma ko bëggee happiness laa bëgg sama life ma xam li koy bëggal di ko ko defal li si gàlla gaynde ay benn deux cans quinze mu génne bagage si teg buus bu bees ak wins taal mu tàkk tuuti rensal stress si ins bi memel ne kuy janeer tuuti happiness next stop spot to the VIP dugg kako si benn loge VIP chillin' like a big dog you know me nigga I'm loving all these beautiful shorties around me nañu jël lu leen neex boy I got it. ci laa ko seen si el bi mu di ma xool xale bu lu gaynde jantal rek triple na ko tooy xeet am cinq si tig dog di niru ko nooy genre xale bu lay xool nga xam ni tey doo sooy mu di ma xool ay bëtu yaa ci des ma ni ko béy bi noo tëdd mu ne ma happiness deux jours a des si life bi te foog ma dund happiness laa bëgg sama life sama the life, seet happiness la tudd happiness laa bëgg longest time alive. mooy comme li ma doon wax album ba muy soog ñëw da doon dégg de gauche à droite gars yi naan xaw ma ndax école bi dal na la wala dalu la mais gaan bi mënul rab dara kii dafa ñëw rek xam nga ak xaalisam gars yi pousse ko mu dem ay affaire demee noonu loolu dégg nga gars yi di ko yooyu école yooyu egg si na sama nopp quoi te bon moo ma topp ba léegi ah. moo ma topp ba léegi parce que damay ñëw di jéem a di la gars ci njëkk ak teraanga ni ba léegi tey jour bii nii mooy wax ak yow nii mais chaque fois ñoom ñu ngi jéem calculer lan la ñu mën a coof ci Dyno quoi te you know ëpp leen money nii Dyno amul gàtt you know seen li mu sama différence ak peut être yeneen gars yi mooy nii man sama xaalis iñaane ma ko quoi comme je t'ai dit ci sound Ndeye Mbele bi you know kick ko moom

xaw ma daal problème bu ñu may tegal nii ma génne lépp lu ma yor ni jox leen ko ñoom dañu jël loolu nii après dañ koy eggee ak yeneen nit ñoom ñu naan ok kon waa ji peut-être con waa ji dafa am alal yaa dara aw ma ko gis ngeen su ma ñëwee sama kër papa laay dal mun ma sax jël hôtel <laughs> bu ngeen gisee oto bu may dawal da ngeen di ree ba xam mais loolu la quoi donc gars yi ma doon jëlal nii peut-être ñoom ñoo commencé di you know propager yenn échos yi nii ba gars yi di ma xoolee noonu nii mais par rapport ak musicalement ak ni mu la ko woon léegi nii erreur yi ma def happiness dootu leen ko déggati si daay noonu loolu c'est dund nekk fi de mais li yéene bi moo tolloon foofu jamono jooju ko et puis li mu doon dund moo tolloon foofu quoi parce que vidéo boobu dafa fekkoon may door a génn si benn situation bu xaw a tar ak sama ex jabar mu nekk. à l'issue de yeneen toof tolof tolof yu tar yu ma. mooy mooy je rappelle que ne mooy vidéo bi ñu bi bi ñu seetaan léegi ah, mooy happiness ah moom lay détaillé nii le pourquoi mu bind ko ak lan moo tax mu génnee ko muy happiness bi. yeah happiness bi nii la demee quoi mais xam nga depuis ay sam sama yaay sama frère dañ doon ñëw New York ñu ne seen di ma seet si foofu ñu di gis ni may dund ak sama gars yi social living bi quoi ñu may tegal ni yow gars yi duñ say gaan ñu ne seen ñi dañ lay use you know ma naan leen non yéen a naandu quoi ñii duñu samay gaañ sax samay frère la you know ay dët xam nga jóge si yooyu nii gars yooyu yëpp wan ma seen ginnaaw bi affaire demee ba tar sama saa ñoom ñëpp ñu geesu quoi donc sama première femme bi ma amoon foofu tamit xam nga affaire yi tar ni da ngay ree ba xam jóge si moom yeneen gars yi ma màggandoo fii ñoom ñëpp geesu gaañ affaire bi di ma niru ay yu kër xamul ci laa bindi ndeyu mbili ji di leen wan ni no matter what loolu yëpp day ñëw nii mais ndey mbili gi di changé du ma break quoi donc happiness bi dafa fekk ma ñëwoon town une semaine après ma ñëw town gars yi may ma soxna bon ma tegal soxna bi ne ko bon man lii laa dund sama life quoi lii laa dund sama life ay góor yi lii laa dund sama life ak jigéen yi di ko tegal ne ko bon man keeruma lenn si àdduna bi quoi keeruma rafet nga taaru nga am nga lii am nga lële leen laa keer mooy confiance parce que loolu moi, ma métti quoi loolu la musul am sama life su ma ma sama jàngat boog sama life looloo moi manqué quoi donc il s'est trouvé bon si avec Birka kàddu ni ñu réeroo ma ni bon moom tamit ni ngi yo si ni du loolu la waxantone waxantoon ma ak moom quoi ba yalla dogal wala life bi dogal que mariage boobu mujjul abuti <coughs> donc bi ma sonné, si déception yak affaire yooyu ma ne bon légui man kerruma quoi you know c'est bala may dé il faut mo dund happiness bi donc ci laa toog mu bind happiness sang boobu quoi mais chance naa ne toll na ma foo xam ne bis bu mu ko génnee tamit gars yi nañ ko mën a get quoi mais yow fi ngay bindee nii gars yi jamais nu get ko ñoom dañuy déglu nii après fa leen son bi yóbbu rek fa leen yóbbu dégg gars ne boo bindee lu jóge ci xol ci xol lay demaat yow nga amoon yaakaar que ne comme sa xol la jógee bu génnee gars yi nañ ko accepté. voilà mais nag comme gars yi ñoom danoo xarañ danoo gain ñoom dégg dégguñu album bi xamuñu kuy daay noonu parce que nit boo ko xamulee nga di nga def recherche quoi mais balaa nga koy jugé parce que bon artiste tamit xam nga mënul lu dul gis dara nii rek peindre peindre ko wala way ko quoi léegi boo bëggee xam kooku lu mu doom da ngay dem xool si yeneen yu muy job xool si yeneen yu muy dox mais doo gis benn œuvre am rek commencé di ko jugé quoi donc gars par rapport ak loolu lañ doon ñëw naan ay daay noo mënoo raba daay noo lii ak lii ak lii la mais sama faute la un deux sa faute sama communication team quoi gars yi yoroon communication bi la parce que ñoom déglu nañu album bi ñoom dama doon toog ak ñoom comme li may wax ak yow nii en famille di waxtaan ak ñoom sama ambition li tax ma jóg ci musique bi li may def di leen tegal son yi son bu nekk ma leen koy tegal gars di ma gëmloo ni ñoom dañu gëm affaire bi mais su ma génnee Sénégal dara. man album bi dafa bëri ay erreur yu ma ci yu ma ci remarqué ah non seulement déglu naa album bi dinañ ci ñëw mais daay noo tamit dama gis ne album bi même single bi nga lancé pour annoncer album bi tamit dafa am erreur. Euh, ban single premier album bi. non bon bon, seetee si premier single de Galsen la woon te boobu nii bi may lancé Galsen du woon affaire de album affaire de benn son deux son la woon yow bi ma bëggoon quoi donc ni, euh, doxandeem bi ak Galsen bi moom mënu ma wax ni erreur la quoi parce que n'ek moom di promouvoir album erreur bi mooy bi ñu duggee si suuxu album bi au lieu ma leen di jox yenn son yi comme ay dëggu ndeyu mbili jeeg gaynde tripping yeesal biit ak yooyu ma di jox ay fàttaliku di leen jox ay happiness ci dara bi

album bi man foofu laay waxee erreur bi quoi parce que tànnuñu son bi ñu war a tànn pour mu génn comme single annoncé album bi mais album bi ñu koy xool ndeyu mbill gi xam nga souvent comme ni ñuy wax da ngay album pour mu nekk message boo xamante ne pour askan bi la mais ndeyu mbill gi boo koy da ngay sentir que ne le temps day revenir aat ci yow quoi genre éco bi yow la histoire yëpp dafay mel ne que dëggu bi. par exemple dëgg bi mooy bi ma nekkee Irak 1951 di xool temps yooyu Israël mi ngi am benn xare ak palestiniens yi dem di di leen bomb you know you yi ñoom Condoleezza Rice ak génn fi naan ay you know benn Middle East bu bees buy waaj a judd la quoi parce que ñu doon bomb di leen kill ay jullit lañu woon ay innocent la ñoom keerunu quoi donc dañu bëggoon bàyyi ñële may leen benn window benn fenêtre boo xam ne mën nañ ñëw def la ñuy def après mu jox ko tandis que bu dee ñoom seen dëkk yi la wala dëkk nasar yi benn bomb rek ñu ca lépp daaw léppay tëju ñoom seen africain yi daal ak jëlitu moom bu dee ñoom ay Rwanda yooyu dañ leen di bàyyi ñu xeex ba daal ñuy door a ñëw donc bi ma jafee jàngat boobu nii ma ne lii bon du ma ko bàyyi mu jàll quoi il faut mu wax si ñoom seen mais comme xam naa sama histoire you know sama histoire nit ku ñëwal ak histoire occident yooyu un tout petit peu je je sais que yi jot mës a taxaw ci dëgg ñu mu a dox ci yoonu dëgg gaa yi dañ leen fexeel ko muy par rapport ak histoire yi ñuy jàngal fii si école yi suñu buur yàgg yi temps colonisation yi muy ay récemment ci indépendance yi ñoom si Biko ñoom Thomas Sankara dañ leen fexeel ko ma ne bon li may bind nii xam naa ni li ma si li may def si biir nii mun na jus kaay fexeel mu quoi. lagi da ngay bàyyi wala da ngay dem da nah, ngay ragal wala da ngay da ngay da ngay taxaw si sa ngëm après ma ni dootoo dégg ci man dara lu dëggoo nii dëgg bi foofu la mbili ji si affaire boobu ak sama gars Houston bon may door a gis nag li sama mère yaagoon tegal sama frère yaagoon a tegal ci gars yi ba bom, di xamal ni bon instant eh, bi affaire yi sama bor mais du mus a changé quoi parce que ma musuma leen soxla yàlla jee ma musa a parce que gëm donc tartar bii nii peut-être naandu ma nii naandu ma nu mu demee nii mais au moins yéen xam leen benn affaire du man maa leen di mos a soxla quoi man maa ndey mbële ji man man man man damay gérer quoi you know seen donc ndey mbële ji fa la jógee donc dama leen di nettali ki ma doon fi ma fi ma jaar lu tax man mel ni ma mel you know di leen nettali you know si son bi la ba ba ma egsi si trois troisième couple bi nag bomb leen quoi wax leen nu mu demee you know seen euh, fàttaliku ñëw. dugg si temps bi nii su may génn naay di gis booy yu bees yi nii ak seen melokaan yi ñuy nekkee si biir temps bi xam nga may fàttaliku ñun suñu temps booy ni temps bi différent wooy woon liñ dañ doon chill di dem buntu ngalam gaan di chill nice xam nga bi dafa nice kan moo la téye refrain wu son bi refrain bi sama benn home girl bu nekk Houston la à Austin actually Tira what's up T um, bi ma jotee instru bi <clears throat> dam ko ko yónnee rek ne ko bon son bi si fàttaliku lay doon quoi damay bëgg netali sama enfance ak affaire yi ñu doon jaar ak ni dëkk bi changer quoi après ma jox ko ko lépp moko ko moko moo ko bindal boppam moo ko si nice quoi on s'est retrouvé ici à Elienzig dafa jël vacances euh, man tam ma def sama vacances coïncidé comme ça ñu mën a tase euh, fii après enregistré ko donc enregistrement yëpp fi nga ko defee à Elienzig. premier album bi mom bon. majorité bi disons quatre-vingt pour cent yëpp Alien enregistrement Alien Zik la quoi en fait yëpp Alien Zik la parce que am na son yu ma njëkkoon jël ak euh, un gars Papis Konaté la euh, du bu nekk si beneen bi mooy joobal mbalaxmaan boobu la Pape Diouf.

ci fàttaliku bi leen yemoon te fàttaliku booy xool moom leen tànnoon comme son boo xamante nii moo participé woon ci type de l'année bi passé mais yàlla dafa def mujj ko jël alors yow xalaatoon nga ne par exemple comme ay euh, affaires yi am nii euh, Sénégal euh, concours yeeg yooyu noonu di ci bokk comme fàttaliku bi ñu jël yow pour yow yan critère moo taxoon ñu jël bon man fàttaliku je m'attendais pas à ce que nous hein. disions encore une fois you know saying bon avons nga nous Nous avons jot nañu nous album bi nous nous peut-être nous leen nañ mérité mais le malheur est nous jotul déglu album le grand public Nous a que nous avons nous baadale dafa Nous dañu dañu sentir comme si dañ leen quoi donc ce n'est pas you know saying bon man moom j'étais juste dama ñibbi gars yi woo ma ne ma nominé nañ la bon ma happy si quoi parce que xam naa ni man mérite naa ko. su boobu ñëw nga ba jouer sax gis naa la. yaa ñëw naa Sorano jouer et tout c' était très bien ça m'a permis de rencontrer plein de gars yu nekk si game bi yoo xam ne nii dem bon de noonu rek laa leen doon xamee wala à travers internet bi quoi donc nice on la quoi c' était affaire de famille bu nice. mooy li ñuy wax rek xam nga ni première vie, bi muy am ci yow moom la lay jàppee moo lay topp parce que souvent sax da ngay dégg euh, tey boo ma romboon nii ma toog ak Loulou NS nga romb rek ma ne ko gain bi nu mu soofee même bu la xamul soofaay boobu lay continuer di gis si yow mooy que ne nit ki image bi li muy njëkk a gis si yow loolu la lay jàppee noonu la jàpp moo tax peut-être que déception yu bëri wala peut di wax ne Dyno ñii naan mënul moo tax gars yi jàpp ci promo bi même gars yi ak lu ñu jàpp jàpp jàpp ci promo bi album bi demee wala noonu album bi dafa nelaw tey jii nii alors léegi yow loolu lan la la jàngal ak lan nga préparé def fu mu toll bon lan la ma jàngal mooy nii euh, faut rien prendre à la légère surtout si biir game bi quoi parce que gars yi dañoo métti ñu ne seen il faut nga leen di jox ñu ne seen loo xam ne nii day tëj seen game yi ñoom ñëpp te dinaa tëj seen game yi ñoom ñëpp ci deuxième album bi. loolu moom promesse la quoi you know mais tey jii nii bu fekkoon ne gars yi promotion bi dañ ko jaarale ci yoon comme ni nga ko waxee euh, comme ni nga ko bëggee euh, est-ce que jaaraloon promotion bi ci yoon yow di nga am temps pour gunge album parce que produit boo ko génnee lu toll ni album nga génne ko sur le marché pour nga présenter ko public bi yow tam foog nga présent di def ay scène teg ay concert affaire de mel et yow sa temps ak sa liggéey dina la Non, je ne peux pas permettre de faire des choses comme je veux. Je ne sais pas si je ne peux pas. Parce que déjà, je suis très fier. Chaque fois que je suis des fier, je suis très fier. Je suis ma famille. Parce que comme tu, comme tu viens de dire, les dernières 7 ans ou 8 ans, je suis allé Afghanistan et en Irak. Donc, ma famille, vacances, vacances, je ne peux pas donc au départ nice mais bi ma duggee musique bi ba léegi nii ay benn yoon la par donc la musique bi laay ñëw fii donc temps matul musique tamit temps mais yaakaaroon naa ni boog bu communication rek promo bi jàll na mu jàllee ba gars yi yi saa yu ma teewee si temps bi concert Il fees quoi parce que gars yi bëgg you know what I'm saying gis daay no performance leen son yi ñuy déglu nii di ko get quoi muy di si you know what I'm saying man for laa ko kaloon don't jàngat naa si ni du demee noonu quoi affaire bi rien you know prendre euh, à la légère come si ni sotti na ba pare you know même bu demee ba taxaw sax bon peut être ñun sénégalais loolu mooy suñu faute quoi comme bu ñu gagné France nii yaa yaakaar ne gagné nañ coupe du monde suñu bi dafa gaaw fees donc instant bi moom xiif quoi euh, am <laughs> kon pare na tripping mais tamit ma gis beneen affaire man instant bi nii su par exemple comme ni euh, album bi instant bu ñu jaar jaarale woon promotion bi yoon yow am temps pour def ko mais est ce que yow kon sa musique affaire bi yaakaar nga ne dina jaar yoon trop vu que yow da ngay jàpp tout temps da ngay nekk ci ay mission da ngay boo ñëwee Sénégal temps bi nga fi def du gudd foog nga gis famille bi musique bi ak partem loolu comme nee nga danga na nar a reprendre à zéro loolu nag nga koy gérer. wala si vous permettez damay jégalu sama famille Padois damay jégalu sama famille Rufisque damay jégalu sama famille yi nga xam ne nii avant musique bi saa yi ma ñëwee fii dañ ma daan gis tout le temps te léegi dañ may dégg si temps bi di ma dégg si interview bi te duñ ma gis maa ngi leen di jégalu bu baax na ko affaire bi loolu quoi dafay dafay xat dafay tar Donc, je, crois que comme je t'ai dit euh, euh, au début, quand on débutait ici, interview, que produit boy Jaini, beaucoup, boo de qualité bi war beaucoup présenter nous ni mu jaay ko ni quoi. donc le malheur moins que fans nous nous am par exemple chaque mois ou you know chaque deux mois comme nous, nous ko nous ni mu nous avons mais. war na mun a nekk noo loo xam ne nii ñoom bu ñuy même su mu fi nekk lee bu ñuy get yi di get interview wala di ñëw si net bi ñuy waxtaanee tout dina créer benn attente beex boo xam ne saa yu ma ñëwee ci temps pour bomb dañuy ñëw ñu bégee quoi parce que bëgguma dara la loolu yor maag bi ngeen toog nii ñuy bégee may gis ngeen di happy quoi loolu rek doy na ma parce que loolu moo may wan ni li may liggéey mi ngi dem quoi te yéen a may déglu ñu doon seen te loolu laa si jublu mais beneen côté bi bi gën a sensible aussi xam naa dinañ ci ñëw léegi mooy que ni euh, Dyno euh, génne produit bu nice teg ko ci marché bi rek du du te bi temps boobu noonu yow amoo ko non aw ma ko moom moo tax chaque fois bu gars yi di di ma laaj ci interview ma leen di wax naan man mëni taxuma jóg jóguma nii pour ñëw def ay carrière si game bi dama ñëw nii pour am lu mu bëgg waxanteeg booy yi quoi laaj jëm leen xam nga yokk xel ak xalaat quoi parce que bu dul dara ñun xam nga àdduna bi ay idée moo koy dawal idée moo koy dawal nasar si day ñëw teg benn idéem tuddee ko capitalisme indi beneen idéem tuddee ko démocratie indi ay idéem di ñu di ñu sit ak ñun si yoon boobu te bu dee dëppoowul ak ñun suñu réalité ñuy dund bu dee dëppoowul ak suñu ngëm il faut ñu war a mën a toog you know ba max booy yi jonj ba ñoom ñuy créer ay idée il faut ñuy xalaat quoi bañ chaque fois ñu ne la yoon bi nii la il faut nga jàng nekk ba def ar ñoo nekk ingénieur il faut nga jàng ba nekk art dem nekk avocat yooyu yëpp c'est très bien te àdduna la il faut mu ne mais amoon nañ fi ay Cheikh Anta Nous xam ne dañ doon toog tubaab bi théorie nous ñu indi seen théorie défendre ko mu tegu ana euh, yi commencé di dox di créer idée ñu ñu communisme ak socialisme ak démocratie ak capitalisme nañu créer sunu ay propre idée yoo xam ne moo gën a méngoog li ñu gëm li ñuy dund ak sunu système de quoi parce que système bi arrangé indépendant nañu depuis xaw ma kañ ba léegi moom gënu suñu xaalis ba léegi mu bindaguñu hymne national en wolof. idée. loolu muy lu naay sax euh, mais mais Dayno à part happiness def nga beneen vidéo. wala album bi ci album ndey Ndeye bi. yooyu def naa vidéo pour dëggu def naa vidéo pour Ndeye Mbile ji euh, bon. yeah naa ay cinq vidéos pour premier album bi ah. donc dañuy xool ndey Mbile gi ah, xool ci tuuti rek ah ñu ñëwaat ak Dayno. ci noo mën a wone àdduna dafa goddu tànk respecté naa sa xadaru ngëm jow mais dem ci ndànk boobu maa e xër xol bi gaaw a tàng dafay lakkee bu laal foog baraami xëm may doro jàng sama bopp bi dëgër ni xeer laa doon jàlle ba may xale ci ale HLM la ma daan daaxeek bantu bale pour ma sangu ma koy wërloo ba jaaxle yee dese Adja taw man la koy jaale màgg tey libéré wu de innocence ngone prisonnier wu jaar jaar bu tar buy langaa mu si boobu ngore wóolu te bu desoon sama xol dee ma enterré yore attitude me against the world ni buuru Corée saayumay génn gàlle nee na baa ngi sama paquet ba keroog may dee du ma tàggoog moom mooy sama paranoid yaakaar ne ñëpp ma bëgg attaqué Na ku ma yéen a na egg si nega dama juddoo pare na yëmbele ji maa ngi nii de die low same G ba ne woon downtown New York dara changé wul sinon ba ci may ok Mr Dayno ba léegi ah, en sa émission sunu saat euh, mais Dayno après album bi euh, Ndeye Mbile gi ba mu génnee dama gis nga génnee benn single dégg naa sax am na deuxième quoi mais boobu éco trip la may niroon quoi lan nga jublu si si son boobu noonu. Euh, na xëy de si xëy. mooy par rapport ak question bi ma laa laajoon léegi ñi naan Dayno mun a rab ak mënul rab ak dafay indi. ay ci sama yëfu con yooyu. waaw mais yow loolu tontu woo ci quoi day noo mënul rab léegi yow lan nga wax ci loolu day noo mën na rab wala mënul rab. non man maa leen daax rab. Ah. maa leen daax rab parce que ñoom dañuy toppandoo. ñoom ah. seen ay ay flow la ñuy def ak ay di jéem a ñoo di métaphore yu gën a graaw yu wëndeel sa maay nag yu kenn xamul man dama lay tegal loo xam ne da nga koy dama koy rab nga ko sa maay di ko gis donc seen li ma dund laa lay tegal quoi you know sa xol da koy yëg sa maay di sa bëtu maay di ko gis loolu mooy rab quoi rab mooy nga ñëw créer loo xam ne nii sa yow la fii la jóge danga koy tegal nit mu koy gis ba pare di waxee fa nit ñi di déggee quoi impression kenn daal laa mën a xam ni rabam gaañ na mu quoi muy kii la you know nit daf ki la la moom du chaque saa su ne dinaa ko jox cër boobu quoi parce que moom laa njëkk dégg rab boo xam ne nii jam na moo quoi you koo xam ne nii su xol bi lay yuuxoo day day day ba pare moom askan bi lay teewal ko you doo seen donc moom moom mun naa ko wax quoi am na rab yu bëri yu ma laaj nag naa leen dégg tec technicalité bi rek yooyu yëpp nice quoi. mais na ay ndaanaan de Dayno bëri na ay ndaanaan. non na ay ndaanaan. fu ne la ñuy dajee. bëri na ay ndaanaan man xaw ma Galsen yëpp. xaw ma gaal seen yëpp quoi donc xam nga loolu tam erreur la nga nekk ci game bi am na gars yoo xamante ne instant ñuy nekk au devant de la scène mënoo leen xam. non am na am ñoo xam ne moom à travers le net laa leen di xamee parce que clip bu ñu clip bu ma gis ñu gars yi poste ko Facebook wala YouTube dama koy caaj. clip bu ma gis nii mu neex ma dama koy partagé sama mur man soxlawu ma lay xam soxlawul ñu am jàmm ak salaam soxlawul na nga def su su bu naasee dama koy bomb sama mur parce que hip hop laay teew te real hip hop laay teewal am na ay gars comme ay euh, Fuken Cook ay Rawu Street ay euh, nu mu tudd Gaaka Blende Boy Nika Kami bon bëri nañu Sansala Sansala bi teewal asalaam ñooñu lépp lu mu teg si net bi dama koy partagé parce que ñoo bokk fi ñuy jóge quoi. man damay sentir côté côté gangsta. xam koy tuddee gangsta rek mais loolu mooy loolu mooy dëggu mais loolu loolu du gangsta loolu mooy dëggu mais. dëgg la man dëggu fu mu ko gis moom dama koy laaj. donc mën nañu revenir ba noonu euh, dama leen di xamal ni rek Dayno. you euh, du li ngeen yaakaar quoi Dayno moom mënoo ko xam tant que get album déglu ko bu dee nag dafa am koo xam dafa jël album bi dem toog déglu ko A ba Z ñëw jox ma critique you know seen loolu moom mun naa ko avaler mais ñii di déglu ay son benn son deux son wala seetaan ay clip erreur yi mu la wax nii moom laa njëkk a balancé ñëw di bëgg mu jugé foofu nii xëy des laa leen di tuddee quoi parce que xamuñu dañuy dañuy mbaw rek you know Eh, maa leen dàq rab foofu. maa leen dàq rab oui. <laughs> yebaan naa Mr Dayno mais Dayno euh, comme comme comme ni ñu ko waxee single bi génn mais single boobu day bokkaat ci album ci biir album bi ngay préparé. waaw na xëy na si xëy mooy moo doon mooy premier single album bi si album bi lay bokk. you know seen euh, semaine bii passé dans il y a deux semaines je sais pas génn nañu beneen single bu tudd Sénégal maa ak sama benn boy bu tudd Iveka. benn woon def beneen son bu tudd Sénégal. non son bi mu jokkoon enregistré Galsen represent bii nag sénégale la tudd quoi you know Sénégal bon c' est c' conscient quoi benn son bu conscient la mais son bu mu mën a def même yu conscient yi léegi nii day fees dell ak ego trip you know non pas ego ak gaynde trip

léegi dama si togg beneen idéologie si ginnaaw quoi mooy you know seen gaynde tripping army ñun ñun arme lañu quoi arme lañu boo xam ne suñu suñu ay arme suñu big la suñu feuille ak suñu maay you know dañuy dañu bëgg job town bi quoi Ah, mu mu muy lu na xam naa bu ñu bu fekkee ne yow da nga am problème mu temps boo nekkee euh, Kaanaba munoo am connexion ak musique bi foofu ni muy demee doo xam affaire yi comment ça fonctionne parce que dama la bëggoon laaj ndax instant boo foofu noonu say connexion foofu lan la est-ce que yaakaar nga ne sa album yi mun na nekk album international ndax par message yi ngay di génnee sa son dina leen intéressé ñoom ndax sa musique dina mën a jaay foofu Ouais, bon, comme tu viens de dire, bon, évoluer aux États-Unis, Loubari, c'est ben la fête d'un par année, temps yini, depuis les dernières années, Benyon, deux fois, deux fois. Euh, mais par rapport à Guy, il job il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup d'artistes, des producteurs et tout, ils job for Dès que nous produit deuxième album, surtout les sons en anglais, bon ñoom am nañu am na yoo xam ne nañ ko seen mur déjà quoi ñoom bëgg nañ ko bon yaa couleur bi varié na quoi you know c'est am ay son yoo xam dama siy way carrément you know xaw sax ni mën way ñoom ñoo ma ñoom ñoo ma way la. sa baat bu diis bii nii da ngay way. way way naa ah. ah. way way naa de. nga ko teg. <laughs> yow ah. ñooy dox ci kekk dëkk fay tag di struggle every day. saa su ne si waar bi géré ba ñu ma ci dem all the way. ci mbedd mi get money forever gain trip nigga yaa ko tey yeah life moo ma def ki ma doon def sañu dem oh, <laughs> <laughs> loolu moo xam naa foog ñu def ci ay effet effet effet effet mun la jox loo xamante nii mooy loolu ko <laughs> yee waaw réew xam la Yémane mais kon euh, prochain album bi di ñëw day am ay day am anglais pour mu est-ce que yow langue bi mooy tax mu international ou bien euh, ci tëgg bi la bon man sama album personnellement li koy internationalisé si langage bi la quoi si langage anglais bi la you know c'est parce que son yi <clears throat> son yi mom, déjà bon voilà quoi son yi gën a taay doon na nekk son yoo xam même si àll bi nii mën nañ ko get mën nañ ci dance quoi donc son yi du musa doon problème quoi mais àll bi ñoom you know boo dul l'accent langue ni, rarement la ñuy gën seen mbir quoi bon Nigérians par exemple Ghanéens li len may chance moy ñom seen biici quoi. seen biici dañoo am ben couleur locale bo xam ni exactement donc mais ñun suñu hip hop amul. particulier gu particularité bu len di permettre bok ñu tuddee ko hip hop gaal seen bok mais am fi ay instruments yo xamanteni gars wax souvent que ne duñ koy utiliser motax du ñu mëna ragné ràññee. mais bon mëna ñu utiliser instrument yoy mais du si instrument bi quoi si mélodie yi ngay jouer si instrument bi la. Mm-hmm. donc même ak instrument ñu yor ni ñuy utiliser. si fon bi moo am solo quoi beat bi rhythm bi bu dee defoon nañ ko ba mu joxe benn affaire boo xam ni dina sound hip hop mais ba léegi am na beneen you know sound boo xam ne nii dafa local quoi like c'est c'est strictement bu ñu defoon loolu nii lañ dem quoi donc instrument yi ñu bëgg a introduire nii nice you know day da di jox benn qualité son quoi mais du si du si instrument du si instrument yi quoi si si si si si euh, si bi la quoi si beat bi itself you know yeah. Euh, album bi euh, exactement kañ lay génn si 2014 bi deuxième album bi. bon xam naa tey laa war a dem teg ak sama fans club bi nii xam naa nañu toog waxtaan déglu son yëpp. ay fans club kon fii. yeah fans club bi HLM mi ngi waaj a tegu euh, benn boy sànq rek la fi jógee di ma indi lay projet ñu bëgg teg fii euh, mi ngi tudd HLM bi la ñu jël tuddee que Hustler lew euh, mine lewal mine Hustler lewal mine donc ñoom dañu bëgg commencer ay projet de set setal ci biir koñ yëpp parce que bi ñuy doog dëkk fii ah HLM lamp yëpp da doon tàkk gaan mhm. ak ale yi dafa leeroon naaju quoi dafa naajoon donc bon ñoom dañu dama leen dañu bëgg dox si yooyu ni taman yooyu ma tax a jóg quoi donc dama si jàppale léegi bon. partenaire sax la leen dox mais dans le pour le projet social quoi ñun Gaynde Tube dañuy dox si social bi am nañ waa Malika club ok you were talking about the fans club bi am ngi teg a sancu ba si lami ñoom ñu ngi commencé galvaniser pont parce que message baa ngi commencé jàll quoi. lam a ñëw ah man waa Malika a dégg ah, ñoom sax ñoo créé benn page si lu tax ba Malika nu mu sori lu tax ñuy ñëw tardivement wala en fait Malika le siège u Fans Club bi nekk mais Fans Club bi xool bi ñu ko ñu ko sant ak waa Kër Massar la quoi ñoom ñoo njëkk dégg daay noonu njëkk bégee daay noonu nii nangu daay noonu bi quoi te man moom du ma fa mus a wàcc te ñoom tamit duñ fa mus a wàcc quoi ok mais HLM ñu ñoo ñoo dama doon dugg si biir tali yi dem di joxe CD bi joxe ay poster di wax yi quoi mais mais ñoom ko topp xaw ma teg naa fi sax concert mais mosuñu ñëw quoi mais instant bi moom ñu ngi ñëw quoi ah mais euh, tey jii nii euh, Dayno kenn kañ nga wax ne la album bi di génn exactement. mois de septembre incha allah bëgg nañ mu drop quoi. mois de septembre alors donc mois de septembre dinañ xaar albumu Dayno nan lay tudd. Euh, jàpp gu nu tur nag quoi jàpp gu nu tur. mais ban mën nañ xaar yan couleur ci album bi. couleuru Sénégal bu metti couleuru gaynde triple bu metti couleur du ma du ma may benn MC 1 mm bu metti ñoo seen donc lépp a ngi si biir quoi samay encore une fois samay expérience personnelle comme ma son yu mel ni Marissa ak yële son yoo xam ne dama ko bind juste pour yee booy quoi waxtaan ak ñoom son yoo xam ne nii pour man la quoi man su ma toogee wet ak sama bop ak sama yàlla nii di xalaat nii di am yu ma bëgg wax man sama bopp. som genre son yooyu tamit lañ ci album bi défi la pour Dayno parce que ñu si bëri ñu ngi doon lam-laamee mu rabam ah ndax gaan bi tegu na ou pas nga nar a prouver. yeah fii laay prouvé yeah yeah. album bi dina jéggi frontière. album bi dina jéggi frontière yeah. ah alors léegi léegi hip hop euh, Galsen ah naka nga ko gisee ak ni muy doxee yow lan nga ciy wax. feesal nañu grand théâtre bon ñu ngi kilaa ngi feesal ay stade donc macha allah mi ngi avancé quoi donc c' est juste booy nañ gën a job rek gën a yëkkati level bi gën a yëkkati talent yi spectateur amin auditeurs yi gars yi dund hip hop bi nañu gën génn di teew di di di di di di jàppale artistes yi quoi you know c' est pour muy jur j'en profite pour bëggee waa Foukenkoog man bon ne woon dama waxoon sama bopp ni ñëwee bëgg naa leen miit quoi mais il s'est trouvé que ñoo doon joué ndoo mënu ma seen saay quoi ñoom seen mais yee gars nañuy génn quoi di jàppale artistes yi ñoom seen. ok euh, troisième bi yaa ngi gis gars nañ de. tàng nañ torop mais amuñu originalité dañu tàng nii parce ñu ngi gën a kaana yi ni kaana yi di. évoluer ñoom noonu la ñuy évoluer quoi like même sonorisation yi ngay dégg même flow yi même même bi yëpp quoi you know seen donc tàng na ah, flow bi moom tight you know seen musicalité bi tight kaana we torop <laughs> voilà delloo si la ko nag quoi. delloo si ko gaal seen am na solo mais Dyno comme ni nga ko waxee instant bi nii yow da nga ñëw tardivement bien vrai que ne yàggoon nga si game bi euh, doon play mais instant boobu noonu amuloon temps bi carrément mais instant bi nii mu dugg te ay booy ndaw ñoo fi nekk xarañ ba bëgg a dee léegi yow âge beeg yooyu noonu est-ce que yow yaakaar nga ne par exemple di nga def carrière bu sori. non man man non man du ma sore man xalaat naa bàyyi ay deux trois fois déjà damay yeew suba teel xam dem si seet bi xool sama bopp rek dem si <laughs> mais encore une fois you know dès lors yaa ngi yaa ngi teg benn qualité boo xam ne nii gars yi ñu ngi koy gain ñu ngi koy bëgg you know donc si ñoom la quoi bu buñ demee ba ba ñoom ñu sentir ni bokkutoo nii ñoom ñoo lay njëkk a effacé te buñ la effacé nga xam sa bopp ko mais tant que ñu maa ngi teg ñu koy bëgg non du ma ko continuer forever nag ba ay bon xam naa fi fii ak 2015 daal bëgg naa gaynde tripping bi ñuy bëgg a sànc si dëkk bi tegu quoi ñoom sañ comme ça ma mën a bàyyi affaire de son yeeg yooyu quoi. kon boo sàgganee Dino si album la nar a yem album bi maa ngi togg nii. deuxième album bi génnagul mais troisième album bi déjà pare na presque am am nañu ay huit neuf sons pour bi quoi donc troisième bi du yàgg si ginnaaw deuxième bi incha allah donc dinañ xaar deuxième albumu Dino bientôt ci 2014 bi en septembre incha mu ñëw def différent devant def beneen innovation liko gaay di wax naan mënu rab dina prouver dina woné té dina euh, euh, teg li nga xamanteni ni gars yi dinañ ko mën a nangu Dino, sa dernier mot lan lay doon ak yeen projet ngay waajal fu mu toll nii. projet bi gaynde trippin le la do. projet bi gaynde le la do bon dañu bëgg tawul askan bi au Sénégal donc j'invite tous les Sénégalais à ils sont soucieux du développement de leur pays you know un souci bu honnête bu sincère bon nous, ñëw naan gens la you know fépp étudiants you know que par rapport ak filières nous, ñuy yi ñuy jàng nañu xool utiliser ko pour askan bi jëm kanam bu droit ngay def constitution bi pamphlet ñu know di ko joxe ci mbedd mi booy xam seen droit euh, bu dee si communication ngay jàng bu dee si journalisme ngay jàng you know seen reporter yi nañu dem si dëkk yi am conflit yi dem wax ak locaux yi am histoire vraie bi ñoo di ko tegal gars yi quoi parce que information moo lay permettre nga jël décision yu baax yi sa live quoi bu dee information bi c'est teinté donc décision yi du mës a du mës a sant fu taxaw quoi donc te ñun dañuy toog rek nasas yi duñ joxe information ñuy seetaan di quinze quoi donc ne ku nekk ak fi nga jàpp ak fi nga mënee quoi ñun mën nañ mën nañ mën nañ changer dëkk bi quoi mën na ne donc dama leen di invité ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale ci Gaindé Théophile wala fépp foo mën a jàpp ah, am na ay juste vrai am na ay soqali sunu saa am na xam nga bëri na quoi dégg foofu moo mën a jàpp rek na nekk benn affaire boo xam ne dafa dëggu si yow ñu ñu jëmale suñu Sénégal kanam quoi. man ngi sama niteur ah sama sama waa ma ah, Lulu NS maa ngi koy beri lu bëree bëri ah di bëggee waa studio di vibe ci bëggee waa HLM maa ngi di bëggee cat ba chat merci beaucoup 1 ba 6 ah merci beaucoup seen fidélité di bëggee gars yi nga xamante ne saa su ne duñ tardé émission bi ñu ngi koy koj ci LCS la scène euh, sénégalaise sa émission sunu side vous donne rendez-vous next week insyaallah si beneen side maa ngi Catlet Katlet di bëggee Nicolas animateur laay wax xamu Nicolas artisan ah, laba di côté de Liberté 6 merci beaucoup Contentien, le ainsi que toute la famille merci beaucoup one love on se retrouve next week damay bàyyi Dayno mu dóor freestyle bu ndaw gaynde tripping Hosloy for the character gore. They like nga wanna muscle vank super. May but say enemy yin and bro. They Te atano yole kin you to gondol name gold? Dynamite balance to bisbelay so. The tie will take a buffy gumbo gunna war. Ya go no kachu muta. It's nothing. The man handle business. They look like gunna sticker. Yem lay nita kacha. Tokom bao lay dao. Hussein bo. Mundu kondak fon la light. Do my MC yin edi jai tar. On that fake. Do man gala world shit. Di jai star. Do my door war. Sama gain the trip. Ashlem nim zar. ba Kër Massar mu jaral ma lu toll ni tëral ragal rendi tey xeer jàkkaarloog tànk ni gaynde Palestine man. That's what's up uh, merci beaucoup next week incha allah sa émission sunu site ah si beneen site encore maa ngi bëggee waa Prophonique family di bëggee gars yëpp merci beaucoup one love Jibi Ndiaye moom moo Phonique let's go.